te namoon naa publicité Sofia bi yéen tamit namoon ngeen ko parce que non seulement publicité bi dafa neex mais beurre ba dàqati ko yeewu fajar euh, raax beurre Sofia def meew euh, voilà ndeysaan te yéen ñaar yëpp rubrique ngeen ba pare Alphie duggul ci seen yëf doo leen ko bàyyi. non mais c'est grave ah. xam xelam. ma ne fii moom loo tax nit ñi xelam lay yónni. yow ñii nee nañ ci beurre social la ñuy wax yow. waaw. vitamine testé ko mu neex ñu gën laa ñaax ak ma chérie. kon ku ci ne am nga ci pot sa kër. bu baax nee naa la benn sax doyatul ñaar nga ci wut. benn ba ci wàññ bi benn bi ci table à moom laa lay tegal nga tossé say pain de mie rek raax ko ci pap te nga sooy tossé sa pain de ci war a def lu gras. Ah. beurre social nga ciy def ci omelette bu baax. crêpe bi nag ak gaufre si bombu cere. doon jëndi couscous. oh mais Alfi Pape Sofia yoo tam. Beurre Sofia rek ak Alfi. day dem. en tout cas doon jéego keroog gis naa ko mu yor ci benn di doxantoog moom. dëgg la nee na man beurre Sofia rek. <laughs> te xam nga plateau bi sax day nduróog beurre Sofia Pape. ak ni ma leen nammee woon. dafa bëri bi dafa Sofia we. Eh? tàngalee salade ngay togg. <laughs> waaw Pape Cheikh salade fraîcheur xam nga soo bëggee def le plein de fruits ak légumes Pape meilleur bi mooy nga léegi ngay consommer ay salade de fruits wala de légumes. moo tax fii chaque semaine lundi bu nekk dinañ jéem a andi benn salade wala suñ ko andiwul defar yi nga xamante ne mooy recette yu yu facile yi recette yu léger yi yi nga xamante ne Pape bu tàngee dangay faral di ko utiliser parce que non seulement minéro yi mu lay indil fibres yi. ak vitamines yi yi légumes yi di andi notamment li ci mel ni ay agrumes muy pamplemousse yi nga xamante ni dina dem ci salaat bi ñuy war a defar mhm. am nañ fi ay dés de euh, fromage gruyère wala parmesan buñ ci def baax na am nañ fi tam ay dés de tomate maanaam ay tomate la yoo xamante ni dañ ko daggat ba mu ndaw am nañ fi laitue muy salade verte bi moom it fejet ko ba mu ndaw def ko ci euh, plat yi nga xamante ne moo ñuy servir de maanaam lii moom la ñuy jël salaat bi defar ko ci ci sànq nag joto nañu monter suñu benn mayonnaise boo xamante ne dañ ci def moutarde Pape Cheikh def ci li nga xam ne mooy huile sol yu ole yor yi pour mooy yoo xamante ne dafa tàng tamit nit ñi ni dañu war a éviter di lekk yoo xamante ni parce que été bi euh, demul ak yi nga xamante ni dañu niin maanaam niin nii ni tam foog ñu wàññi ko def nañ ci ñetti doomu laaj ci biir euh, maanaam mayonnaise bi mu nekk ay éléments antioxydant yoo xamante ni sunu yaram daf koy soxlo laaj di ñu ko jox Pape Cheikh am na xorom am na poobar def nañ ci persil wax naa ko léegi laaj monté ko ba ba nga xamante ni dang na ñu jël ndox bi nga xam ne moo nekk ci pamplemousse bi def ko ci jour bi daf koy soxla li lii nekk euh, maanaam ndawal bi mooy nekk ay crevette crevette yoo xamante ni dañ ko baxal daggat ko am na tamit ceeb ceeb boo xamante ni mooy ñëw tamit bokk ci salade bi parce que dama ne salade de riz ñu def ko genre ñànkatang mais bu xaw a wesang boo xamante ni soo bëggee am euh, maanaam ceeb yi yëpp détaché ba pare laataa muy sedd da ngay tibb benn kuddu beurre sofia pap def ko ci donc moo lay permettre nga bañ a am ay ñànkatal ak dëri yi mën a détaché wu sofia bi donc dañuy jël euh, mayonnaise bi bi ñu monté ba pare daggat euh, crevettes yi donc jéem a def li nga xamante ne mooy assemblage bi il faut bi pap ak euh, li nga xamante ne mooy orange yi ak citron yi c'est bi par ay euh, citronnelle ay citronnade du moins à base d'orange à base de pamplemousse te ñaari carrément ah kilo si limon booy lekk sa ceeb teel ci ñaar wala ñet ci sa karaaf waaw dafa manqué woon mais léegi moom ñor na ma am na it mën na la accompagner mën la accompagner maanaam ci digg bëccëg bi yàlla yokk leeram waaw Penda Mbaye dafa gaañu moom lañu tuddee ceebu jën dama koy ñaanal ni pour yàlla yokk leeram donc yàlla yàlla yokk leeram donc naan bi pap waru waruñu koy waruñu koy négliger mhm. pour bañ a déshydrater ci tàngaay bi ah parce que léeg nga gis nit ñi di topp naaj bi di dox di dox di dox mhm. di fàtte naan te dafa am solo quand même bu ñu marul sax dañu war di naan donc mu ñëw accompagner parce que bu ñu nee naan sa apport en ndox. Euh, fruits ak légumes yi bu ñu fàttali seen seen euh, quantité ndox dafa bëri. surtout période de chaleur. période de chaleur bi moom laay bu bëri dafa dafa baax. dafa bari moom laa moom laa wax léegi. ñu utiliser waa ñu utiliser agrumes yi. li ci mel ni pamplemousse lu ci mel ni citron wala orange. Mm. donc di ko consommer. Mm. xaalu melon bi xam naa ñoragul mais moom mm. tamit fees na dell ak ndox. mango bi mi ngi fi. donc na ko nit ñi ñeme pap li nga xamante ni mooy fruit ak légume ñu bañ rek di wax ni ñi am xaalis ñoo ko war di utiliser mango xam nga ni limon bi yomb na nga utiliser ko maanaam def ko sa citronnade naan y a rien de tel donc ñu dem ci assemblage pap laata dégustation bi di ñëw mayonnaise bi ma jël dés de tomate yi ak euh, fromage bi ak li nga xamante ni mooy pamplemousse bi def ko ci directement ci biir mayonnaise bi mayonnaise bi tam juste rappeler que il faut que ñu bàyyi ko au comme ça bu ñu koy lekk mu bañ ñu sonal donc ñu def ci crevette bi mën nañ ci yokk yeneen légumes lu ci mel ni ay avocat lu ci mel ni concombre def ko ci biir donc ñu ñëw ci ceeb bi donc dañuy def au fur et à mesure ñuy am quantité ba ba ñuy am texture idéale soxla donc particularité wu salade bi wax naa ko léegi waaw particularité bi wax naa ko léegi. ni ma ko bëggee. waa ni nga ko bëggee mooy mooy pamplemousse bi parce que mooy andi touche. de fraîcheur boobu non waxuma pamplemousse de crevette man. Ah, ndaw laa bëgg crevette baa ngi ci. crevette mais man dama bëggul di wax ci crevette parce que dama bëgg. <laughs> dama bëgg quand ñu ñu concentré wu ci légumes yi. pap lekk ko yàgg sa waa kër man lekk bay pamplemousse man. man daal lu dul ndawal bëgguma damaa bëgg di lekk di sàq mi daal damaa bëgg ay crevette. donc crevette ay yàpp damaa bëgg ay ginaar ay jën. pape crevette baa ngi ci biir. waa waaw pamplemousse baa ngi ci biir. yaa ngi seen man daal lu amul ndawal bëgguma. yaa ngi seen persi bi. fees seeg yooyu sama yoon nekk tomate baa ngi ci na nekk loxoti bu donc l'idéal l'idéal ci salade mooy su fekkee da nga foor ci ay ndawal comme ni nga koy waxee voilà mooy dina la permettre nga lekk aussi ndawal bi lekkaale tamit li nga xamante mooy légumes tu sais nous autres dañuy dañu am culture tubaab ba nga xamante hmm. euh, dañuy préférer njëkk a lekk salade mais j'ai vu plein de gens bu ñu lekkee lu diis ba pare euh, li ñuy def entrée la mujjee pour pouvoir da nga lekk facturer Pape li nga xamante ni mooy nin niin mën nga def jet nga jël benn journée boo xamante ni da ngay lekk ay salade salade de fruits salade de légumes lekk yu léger yooyu waaw parce que Pape Pape il faut pas ñi fàtte ni li ñuy lekk mooy sunu reflet Serigne Touba des na tuuti Alfi def def demande pour ñu affecté ko journal waa des na tuuti bu présenté journal dama bëgg dama fa bëgg sax cinq minutes comment bien manger ci journal bi <coughs> barki démb rek ka fa tase nee na ma yow ki doon togg léegi day toog ma ne ko moom di bu yàggee sax mu jël def journal bi al bi dama doon jooy. cinq minutes bi dama doon jooy. télévisé bi laa bëgg. am waaw boo àggalee togg bi am nga ay information yow indaale dégg naa. Mhm. tu as des infos d'accord. nee na yëpp. d'accord excellent. <laughs> dama koy dugalaat frigo bi ba ñu mën ko déguster ñu mën ko déguster dama koy denc ba heure dégustation ñu mën ko déguster mais quand même bu nit ñi di fàtte pap salade yi c'est idéal pour tàngaay bi baax na ci sunu ay yaram parce que feebar yi dafa bëri mm-hmm. ne nit ñi di éviter di lekk lu niin di lekk lu gras mm-hmm. consommer beaucoup de fruits ak légumes parce que sunu ngëneel rek lañ ciy gis pap super mm-hmm. voilà et puis salade dafa ànd ak été bi dafa ànd ak tàngaay bi dafa ànd ak heure bi xam nga euh, même boo koy xool c'est tellement beau euh, bi